alaykum mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu fii ci Eco TV International yéen a ngi Just Gist awa show bi yéen a ngi ànd ak seen xarit seen doomi ndey Fatmata diallo tey nag si biir studio bi maa ngi fi ànd ak ndaanaan la young boy la mu ngi try si aar bi moom tamit euh, mu ngi def kéemtalaay kàttanaam to come out there pour ñëpp gis talentam ragne talentam di ko si tamit mu ngi nekk ki nga xamantene du mag he's a young boy and I'm so proud having him here today because li lañ buga um, ñu am uprising stars yi nga xamantene dañ leena andi si platform yi ñu leena dolel ñu wax ñu sen story from grassroots level ba fi nga xamantene fofu lañ nekk ni tey uh, ba tax nak dinañ dalal Med Boy welcome to the show ñu la jaajëfal sa teway bi tay ye may nuyu ñu nekk di setan yëpp suma fancy wa mm-hmm. Costa Route. Mm-hmm. suma yaay suma papa may nuyu ñëpp ñota mala nuyu mm-hmm. am lo morom hanga maa ngi tamit képp ku nekk di seetaan. Mhm. families ñëpp. Mhm. suñ ne Met Boy kan mooy Met Boy. Met Boy moo nekk boy bu garaaw bi. Mhm. doomi Kostarut bi xam nga. ñëw rek tamit gars ñu bugg mag waa Kostarut. ba ñëw ko ba suma song yëpp yu ma dee woy da nga dee dégg ak Kostarut. xam nga suñ ko alaaji laa daanaka suma life yëpp Kostarut laa ko defee. ok. Ah, wax ñu tuuti si sa educational background bi sa jànga bi yee maa ngi doon jànga Oilinding School mm-hmm. waaye bu ma doon jànga yàgg na soo suma family xam nga gaay ñun daanaka Sénégambian lañ mm-hmm. na suma family ñu bari ñu ngi Sénégal tam ñu ngi fii nii mm-hmm. soo boobu dama demoon Sénégal. dëkk bu ñuy wax Thiès so bu ma fa demee. dama demoon pour seeti suma famille tuuti waaye bu ma demee gars yi dañ ma téye foofu noonu xam so luma ma nekkoon foofu noonu nag si school maay janga French school janga naa ba grade six ata si la Gambia nga dellu si waat so bu ma ñëwaatee nag si suma xel nekk si musique hip hop hanga so si la starté ok naka nga duggee si music, lan moo tax nga dugg si musique da nga juddu fekk sa gars ñu ngi si wala bu fa demee da nga toog rek yàlla def ko si yow wala dafa nekk li nga xamante ne da nga juddoo ak moom music luma ci dugal bari na nak mhm. bari na xam nga man tamit domi gewal la mhm. gewal si nday gewal ci baye suma fam yeb gewal lañ mhm. so suma waye mom, dama wara way woy so ba pare bëgg naa tamit tek si music bëgg naa si am keer bëgg naa si am moto xam nga bëgg naa nit wax ma soxla ma fajal ko lolou ni yeb taxna ma dugal si music yeah wax nga ne yaangi juddou ci si bi nga xamantene sa yaay géwél la sa papa géwél la euh, munoon nga munoon na laa neex nga ne xaaral nga ngooyaan comme géwél yi nu ñooy def. waaye yow ah. you chose a different path maanaam mu nekk nga dugg si hip hop bi nga nekk rappeur. lan moo waral nga bàyyi yoon bi tuuti demee na le. man géwélu noobul laa xam nga. Mm-hmm. dama nekk ak géwél boo xam ne si géwél yu seer laa bokk. Mm-hmm. géwél yu gën a seer. Mm-hmm. man foofu laa bokka soo nekkuma lay géwél yoo xam ne comme dañuy taasu di woyaan wala yooyu noonu. géwélu nobul amna kon ak. géwélu nobul amna ah, benen façon géwél tamit amna mhm. so man mom géwélu nobul la mhm. yeah. ok kan mo la gëna jappalé ci si sa carrière bi depuis bu nga duggé si musique ba tay wa bu ma duggé si musique ba léegi mom suma yaay mom ma dimbal bu baax nak mhm. bala ma dem studio si mom lay ñëka dem. suma tégué tegee bit bi ma pratique su baaxé mu ne ma bana. su baaxu tamit mu ma amna lu fa bon génne ko bala nga dem studio. Ah, dimbali na ma tam si boor bu baax mhm. ak sama ben oncle bu ñuy wax Fodé Touré mon tamit mon mhm. tamit amut morom suma dem studio moy mhm. fay record suma dem programme moo may job moo may yobu moy tamba defar suma bop suma solo lu nees mom la everything mom la da yeah ok mën nga ñu jox freestyle bu ndaw rek fi bala ñu dem yeah freestyle suma ndijay moom ma yoni pour ma fessel stade suma ko deful damay lamba ci taat kon jaru sax maay toog xaar bàyyi ma songa rek daan fii rappa boo fi dégg barki démba tey maa ko taal yeneen gars yi ñoom dañuy xaar rang mi gën a gaaw fii maa fi teg taabul soo mënut play suma tiim tegul nit taabul mhm. eh. dafa mel ni yaa ngi biif koy biif si woy boobu noonu. non wala wala wala noonu la rek yéen rappa yi rek foog rek soo leen def affaire yi. nu mu fa demee rap moom biif la. Mhm. because ku nekk mi ngi jaay sa moroom man maa la daax rap. Mhm. maa nekk king. dama lay seetlu rap ñun rap ñun even man sax suñu leen rap yëpp di nga dégg man maay king maa leen daaxal rap soo rap moom daanaka ñun ñëpp suñ biir dañ lay bifante rap bif la rap ak bif ñoo ànd soo déggee rap moo nekk bif te bif tamit daf dee neexal musique ko dee neexal man su ma dee bif jàppee ma bif dara soo soo déggee ma bif nit nekkul dama la bañ moo tax ma bif la du dara dama la xool bam ne rek ma bif la because bif daf dee yóbbu Artam tamit fans dañ ñe bëgg loolu waaw dañ ñe bëgg because mhm. tay suma juggé rek ma bif ben artiste mhm. gars suñ ko déggé dinañ xalaat ni artiste bi dina reply ñi ngay xaar reply mhm. so loolu da ngay gis ni daf ñuy gëna yobbu bif tam nekk na tam lu neex ci musique ha nga waaye dañ lay faral di gis na yeneen saay um, nga gis artiste muy bif moromi artiste am waaye daal saaga lañ fa dee boole foog nga ne loolu dafa jaar yoon tamit non saaga bi moom nekkul loo xamante lu nice la nag because ñoo ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi wan mm-hmm. Gambia lañ wax. Mm-hmm. su biif moom sooy biif mën nga biif. Mm-hmm. waaye du saaga. because tey man gis naa fi nit ñaari nit. yu doon bifante. ba mu yàgg ñoom ñaar ñu ñëw ànda di woy. ñu ànda woy i three song four songs yëpp ñoo ko kulaabo. gis naa loolu noonu. so sooy biif tamit war nga di bàyyi xel si loolu because mën nga biif nit ëllëg tamit. nga ñëw nekk loo xamante nii nga nekk. comme si musique loo xamante ni yéen a ngi def lu nice yéen ñaar ànd ngeen way mm-hmm. si vidéo yooyu soo loolu noonu yëpp da gis su yàggee mm-hmm. daf lay teg gàcce mun na la teg loo xamante ni mooy loolu moo mm-hmm. tax sooy bif mën nga bif nit nga tooñ ko waaye bu mu tax nga saaga moom jàppee moo ko lu rafet si bif nit uh, kan mooy sa current favorite artist right now waaw man Gambie moom daanaka ñëpp suma artiste lañ man ñëpp laa dee déglu dama dee déglu ñenco dama dee déglu attaque gisul sti mhm. lil ons ñoo ñëpp dama leen dee déglu mhm. su ma leen dee déglu tamit dama dee jël su ñoom lu bari mhm. dama dee jël su ñoom lu bari si suma talent bi daf dee gën yokk a nga moo tax man ñëpp laa dee déglu daal soo amoon opportunité bi tey pour am collabo ak big artist kan la mooy nekk waaw man right now nii su ma doon collabo koo xamante ni moom laa bëgg collabo Hussein Dada Hussein ko mm-hmm. Hussein Dada ñanco mm-hmm. tamit dem na kërëm waxtaan nañ mm-hmm. Waxna ma lu bari tamit Mon tamit bëgg naa ñu tamit yeah naka nga gisé sa bopa as an artist yeah da ngay gis ñuy faral di wax ne man may king of this man may queen bi may borom fi, suma ñëwé ñëwee kenn du laal yow naka nga gisé sa bopa? ku nekk dafa am lu mu gisé man mom kon ma ko waxee rek mhm. maa ngi jégalul nag mhm. waaye ràbb moom mhm. su ma neexee ma wax ni man kenn daaxuma raab nag ah, yee su ma neexee ma wax because maa ngi liggéey loo xamante nii bis bu génnee Gambia nañ tiit yee soo balaa loolu yëpp di ñëw gars yi nañ ma bàyyi xel man demaaguma fenn nag waaye maa ngi ñëw ak speed nag Eh, maa ngi liggéey de. ankañ mhm. eh. waaye ndax yaa ngi plan at any point pour nga delluwaat si jàng bi di ko wax nga ne grade six nga am. lii parce que am na importance torop bu baax baax am na solo. as an artist bi nga xamante ne da ngay educate nga entertain nit yi ak tamit um, ñu bëri de look up to you as their role mhm. ah, yow tamit nga sori si jàng bi tuuti eh, ba nga xam ne yow tamit. so taxawé ngay wax ak nit yi ngay wax ak sa fans yi di wax ak aduna di la at mhm. least mu fekk yow tamit am nga lu deuguer li nga xamantene mo ngi lay support ndax ya ngay liggéey ci loolu tamit working on it wa loolu tamit nek na lu lo xamne day dimbali nit bu baax mhm. bi jànga mom inshallah man daanaka xalé la 14 years la am mhm. so jànga bi tam dama wat school ma janga English because French laa jànga mm-hmm. te xam nga Gambian laa Gambian laa juddoo mm-hmm. Gambian music laa dee def mm-hmm. te music laaj na jànga bu baax laaj na jànga because music dina la yóbbu fu nekka di nga dem fu nekka di nga toog tamit fu nekka wax di nga dem fu nekka nga def fa programme soo loolu noonu yëpp soo jàngee daf lay nekk lu la lu laa gën a dimbali tamit ok naka nga dee manager pour bindal sa song si dañ la bindal woy wala dang bindal sa boppa non maa dee bindal sama bopp naka nga dee manager pour loolu daf ma dee jaaxal saa su nekk artiste suñ xam naa ne yëfi yàlla la rek waaye naka ngeen dee manager pour def ko yow wax nga fii ne um, French nga gën a jànga français bi so yow um, ngay war a rap si wolof hmm. naka nga dee bindee loolu ndax si français nga ko dee bind soo paree nga translate ko in wolof wala nu mu fa dee demee loolu daf ma jaaxal xam nga noo leen ko dee defee daal. waaye loolu nekkul loo xamante nii du métti eh, lu métti la nag. Mm-hmm. man loolu méttiwut si man xuma nax nax ñeneen nag. Mm-hmm. waaye loolu moom méttiwut si man. Mm-hmm. man su ma dee binda. rap sometimes. si olof laa ko dee binda. oo ma binda ko si english. english nag jànguma ko nag waaye xam naa si lu bari. dama dee mën a read dama dee mën a def everything si english. so da nga gis tey su ma delluwoon school english tam du ma sona bu baax. Mm-hmm. yee dama dee binda si english sometimes after ma toon ko def ko si olof. Mm-hmm. waaye nag si olof laa dee gën mën a binda nag. Mm-hmm. waaw dama dee binda benn song boo xam ne full song yëpp si olof laa ko binda. yee. ban time nga dee toog ba am inspiration nga toog uh, maybe lyrics ñëw sa xel bi. wala flow mu ñëw sa mind bi rek. nga toog nga ne xaaral ma binda song yow ban time la la loolu dee dal. loolu man lu ma dee dal bari na trop. Mhm. ma dee dugg si mboto sax. Mhm. ma romba comme benn shop nii rek su ma ko xoolee rek. Mhm. soo loolu daf may jox freestyle. boo xamante ni instant rek gaaw demaat. waaye balaa loolu noonu yëpp man damaa jël suma fóon ma binda ko. lu mu gàtta dinaa ko binda ma paago bindee sax sometimes dama dee fàtte waaye su ma ñëwee suñ kër. ma toogee sometimes su ma mee nii dama dee gis loolu su ma ko bindee nag. da ngaa gis koo jël. Mhm. ma jaarale ko fofu non def ko track. Mhm. Yeah. Fi ci bir studio bi fi lan nga fi gis lo mun wax rek nga rap ko. ci bir studio bi fi ni ah. camera mi ngi fi. aca. ma ngi tok di gis camera kamera. ak nee jall ñu may freestyle ci camera bi ñep tok dima ma ci bir camera enkeñ mën a iya. ko enkeñ <laughs> Non la ñu ya, ne rappeur nga iya. gaaw rek foog nga mun a teg naa ya, ma gëna xam rek iya. depuis bi nga dooree musique ba ban performance nga mësa def nga kontaan ci sa bop nga né ah man tay toj na fi Wa oh, lool mom sama first performance mhm. ya ñu ma on jabang jaabang olinum si biir suñ mhm. koñ ci gannaaw mhm. boobu mom mo nekk first time ma exécuter. Ba bop non mom dama man numa def foofu non sax xawma nakala. naka artiste yep pof nañ bañ wàcca mhm. fofu melut non, waye dama egg buma eggé mhm. ba gay plus ma song bi defna naa fa loo ken ni kenn ko fofu non dama pof fofu non yep bala maa sax ni di ton ma wàcca mhm. bala maa wàcca dañ wax na defaat freestyle lo non yep so da nga gis buma ma ci si bi ñom ñep dañ daw ñew daw suma kaw so lo non, dama si contane contane na si trop yee ah, ndax dag ngay tok be nga am nga feel nervous bala ngay egg stage wala bala ngay taxaw ci kanami crowd because xam nga taxaw ci kanami ñu bari yombut yombut ñoko mën sa -hmm. eh man mom suma gisee stage ni suma ko gisee mhm. suma yaram daf day tanga mhm. duma bëgg lu egg rek ma defalu nice suma mhm. gisee stage suma yaram daf day tanga yeah suma gisee stage so yow lolu dula dé dal manam dalagula non lolu dalaguma man mom ma ragaluma because rap mom rap soko def mm bu dee da nga ragal moom jarul nga koo def mhm. jarul nga koo def soo ragalee mhm. nga moom fit moo koo def mhm. yee so man moom pare naa si fit bi mën naa yëpp tamit man fu mu nekk nii amut lu ma jaaxal si musique non Okay, ndax am nga ben, ben song bi nga xamante ne saa yoo ko dégloo daf la di yóbbu beneen place maanaam you you feel emotional waaw day change sa système bi yëpp. waaw ndax am na song boo xamante naa ko moo nekk song boo xamante ne emotional waaw. waaw mhm. bi maa ko liggéey dama ko liggéey two months. Mhm. ba pare bi tam dañ ko defar. Mhm. nekkul bon dama download bit bi. song bi ko liggéey ma dem studio ma bit bi ko record. mu ngi ma liggéey song bi man ak suma benn sista. ñoo ko wéy soo ci song bi mu maa wax ni. yow la comme song yi ma si bind comme. man ma fi nekk mm-hmm. waye dama ko def comme song leg bo xamanteni dafa daw yaram tuti parce mm-hmm. ci sa mu wax ni yaw la yaw la yaw la mm-hmm. ana kene sudul amen Boy momla la momla. la mom la lolo ma nekk di wax so man si song bi ma ngi ci def suma boppa comme gars man la ko ma ngi bako suma si song bi song bi wayna ci si xamanteni comme suma ko degluwe man duma duma musa give up nga sometimes ni di nga xalat nga ni ba man sax Mau bëgg aga aaga fa aga mhm. ba man sa duma bay musique mhm. waye song ba mom suma ma ko deglu rek mhm. dama lay gëna ñëwaat dama gom ni man dina ko méeg mën nga ñu may tuti si song bobu si song bi ye mën na ko may tuti yaw la yaw la yaw la ana kenen sudul Ahmed Boy momla la momla. la mom la yaw la yaw la yaw la ana kenen sudul Ameth Boy momla la momla. la mom la dama yaga buga rap xoma kan lay start rap dam ko yaga fowé every time mangi tépen and pen bug di xalat di teg di tegg sen yos ñu na ma xalé nga do dem fenn mangi ni may rap ma fol fuñ ko fagut ma tax ñu waru ñeneen na ñoom duñu deglu sama son fu nga tok ngay tok sama sound di la dor koñ bo mënti duga man lañu ciow mëno le ma bañ dama bëgg a xalé ne bi ñëw na dama ñëw pour rap ñëw ma pour has. ku duga si man di ma na la flash nega man duma class kii daal dafa hmm. mel ni moom doole la mooy ñëwee dangay ngay di kaas ahankeñ ma ne ko ahankeñ comme <laughs> na ko ah wee nga ne sometimes da ngay feel like ok xaaral ma give up hmm. wala demee na nii sometimes xam nga dangay am yooyu noonu euh, lan moo dee waral loolu di ñëw si yow ak yow su doon tey nekkuloo rappeur hmm. lan nga doon def loo xamante ne leneen la luy nekka different from music yee man tey su ma nekkutoon rapper mm-hmm. dinaa nekk DJ Mm-hmm. wala ma nekk loo xamante ni si mbiri la mm-hmm. because musique moom dama ko bugga mm-hmm. si deret si bi la so su ma nekkutoon rap tam dina nekk tamit loo xamante ni si xeeti musique la bokk. Mhm. yee. Ah, ok nga mm. wax ñu tuuti rek si jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu nga di jànkuwanteel depuis bi nga dooree musique ba tey parce que yombut. comme mm-hmm. um, noo ko waxee yaa ngi woon Gambia nga dem Sénégal nga ñëwaat fii nga war a mm-hmm. catch up with everything. Mm-hmm. nga war a delluwaat jànga. yaa ngi am lu bëri nga xamante ne is going on time bii nii. waaw nga wax ñu tuuti si jaar sa jaar jaar yi. waaw suma jaar jaar moom. Mhm. daanaka métti na nag mm-hmm. nekk na loo xam ne lu métti la mm-hmm. because musique soo gisee mag gën si loo xamante ni dama si gën a sawar mm-hmm. bëgg naa si mel noo xamante ni daal kenn soona suma famille because suma papa amul doole suma yaay tamit loolu la so soo gisee man ma ñëw ma def musique ma gom ko pour ma bëgg si dimbali suma yaay ak suma papa so loolu moo tax ko ma gën a sawar si musique bi mhm. suma jaar-jaar nag man duma ko mën a wax léegi mhm. waaye benn déet na ñëw nag man yow nañ toogaat li nga xam nu mu fa demee ahankañ ma ne ko ahankañ ndax am na any label bi nga xamante ne sign nañ la wala ñu la bëgg a sign um, right waa gaa yi ñu ma bëgg a sign nag mhm. ñu doon wax waxi loolu waaye ñu ngi xaaraagum nag am na lu gars yi nekk di xaar waaye maa ngi ci yoonu sign nag. Mhm. soo demoon pour decide nga dem ba toog ba nga ne léegi yow da ngay accept uh, maybe record deal bii nii ngeen sign contract yow lan nga nekk di séentu yan benefits nga bugg a am si deal boobu nii. waaw fu mu nekk nii sax man maa ngi job EP. Mhm. maa ngi liggéey EP si laa nekk de si nii so EP bi nag am na sama benn promotion la nag. Mm-hmm. Gambia ya ma mo dañuy waxtaan lu bari. Mm-hmm. so moom tam dafa ma bëgg sign moom tam mi ngi si loolu noonu. Mm-hmm. waaye ba léegi daal waxaagut dara nag. waaye mu may da suma status. Instagram yep lu ma post daf ko dee gis. su gisee daf ma dee wax good lu ma suma nataal. ma performance video yep. gëm naa dal daal mu ma seetlu lu bari si man nak ta jot rek. mu bëgg maa dimbali tamit. Mhm. mu dimbali ma tamit. Mhm. Um, la fan nga nekk di séntu sa boppa in the next five to nga gis sa boppa balaa next. Mhm. dinaa feesal QCity nag incha allah. QCity. yee. bu mooy sa. because suma EP bi di ñëw nii. EP bi. dama ko bëgg a defee Manjai Park. dama ko defee Manjai. gars yi tam nañ ko préparé léegi tey mu ñëw incha allah si loolu laa nekk. acte mhm. boobu noonu su paree. Mhm. dinaa liggéey de. Mhm. next QCT laay oote incha allah. incha allah because am naa fit bi te mun naa ko tamit. dama gom sama bopp soo QCT nekkul loo xamante ni daf jaaxal pour ma def programme. comme lu ma nekkee upcoming nii. siiwaaguma tamit. so duma xalaat te nga doon xale macha allah. waaw years old waaw. waaw so man ragaluma. fuma fuma toge di waxtaanee. Mhm. dama leen de wax man dama feesal ya stade bi inshallah mhm. allah. mun nako ko nako yalla ko def. yalla mun nako ko daf koy e def inshallah mhm. fuma tok man dama de wax stade bi. so man bala next five years inshallah di nga déggalu re si gamya fi man def nako ko fi na fay def history. ban strength nga am be nga xamantene yow nga am wara a be am gum gum bi a 14 year old sitting here with confidence mune mom mun na mo feesal stade bi yan strength nga am. Euh, lu lu baag sa euh, wax bii ne yow lu big artist yi mun a def yow mun nga koo def ak lu ko raw. soo dee loolu because damaa liggéey loo xamante ni song boo xamante ni. Mm-hmm. yooyu suñ génnee. Mm-hmm. even yow soo ko dégluwee yow si boppa mm-hmm. ma may nekk sab best artist boo xam ne si Gambia fii nii yow man ngay gën a bugga yow si boppam mhm. because maa ngi liggéey song yoo xamante nii gëm naa ne su génnee mhm. yëpp génna ku ko déglu mhm. dina ma like dina xam ne liggéey naa song dina xam ne tamit mun naa way dina xam ne gëm naa suma boppa yee man lii daf may ne saa su nekkee rek nga toog ak ki nga xamante ne dafa góom boppam mm. xam lum mu bugga di ko jëmale loolu neex na torop euh, Med mm. Boy yal na la yàlla jàppale because easy wood fourteen year old and you're sitting here dreaming big ñi nga xamante ne sax jiitu nañ la si music bi am na ñi nga xamante ne ñu ngi si a whole different level waaye duñ dee toog bi am xalaat bi ak mm. yooyu noonu naka nga gisee music industry Gambia bi waaw Gambian music moom mm-hmm. dama si kontaan trop nag mm-hmm. yee dama si kontaan trop because ñu def loo xamante ne tamit lu nice la mm-hmm. ngi def tam lo xamanteni lu neex la lo xamne am fi woon yeb mhm. tay amna fi ni mhm. so loolu moom maa wa comme japp rek baña bay mhm. ye okay lan nga am pour wax ñu la nekk di setan si biti fi sa fans yi waaw ñu ma nekk nga am tane ñu ngi laay seetaan ak lan nga am pour ñaax niti ñu ma nekk di setan yeb mom maa ne naa wax jërëjëf si bi waye maa wax tamit ñu bàyyi ma xel bu baax yee ñu bàyyi ma xel bu baax mm-hmm. dana naa wax loolu tamit yee ah, balaa ñuy tëj ñu bàyyi la rek nga baaxee ñu beneen freestyle wala suma nekk guest bi di ñëw on set yee maa ngi stade def lu espal mel ni kuñ taal Bakké Chéré Fall ñu may kool fii ba Sénégal waxal ni gësi international def lu neex dool tiit ba mara naan maa fi nee comme asamaan Gambian music kala yàlla taal man maay déebul buñ fi doom xaar joni joni maay feesal stade ahankeñ mm. mu ne ko ahankeñ jërëjëf Med Boy sa teewaay bi fii tey am mbokkay luñ def dara nag dañoo dem bu de short break suñ dellu see rek suñ beneen guest bi ñëw stay tuned Welcome back, viewers, after that short break. A reminder you're watching Echo TV International on your favorite show, the Just Our show with your favorite presenter, obviously, Fatma Jallo. Uh, right about now in the building, I have Demaski, Manjai Boyo. <laughs> Umpademe? Hi ba. Yaay ba ha? So cool eh, again. Naka nga feel tay yaa ngi ñëw ci show bi fii tey. Maa feel happy, I feel comfortable, you know. Mm -hmm. As usual, like, mm -hmm. yeah. Mm-hmm. ankay ah, mhm. ah, nga wax ah, ñu lay seetaan tuuti kan mooy Demaski suñ ne Demaski booy from Mandiaye mhm. kan mooy Demaski <laughs> ok comme di leen wax ne rek Demaski moo nekk booy boo xam ne mu ngi jógee Mandiaye mhm. di def music nekka ndaw nekk si Gambian music scene bi. Mm-hmm. waaw yeah kookoy Damaski. Ah, ok gis nañ recently yaa ngi toj place yaa ngi def show mu ngi fees <laughs> show bi muy hype xam nga. Mm. te ñu ngi gis mostly nag cepee ñu ngi sa gannaaw de naka la daal ladies man nga nag nu mu ko demee. da nga foog comme mm-hmm. mooy loolu daal comme man ñoo ñooy suma gaay ñoo ñooy suma xarit ñoo ñooy suma everything you know. Mm-hmm. xariti jigéen laa gën a am daan na xariti góor yi. Ah, ok lu waral loolu. ah comme doo dee vibe ak boys yi wala nu mu fa demee. non nga dama dee vibe ak sa waaye comme. ñooñu la ma yàlla gën a booleel daal. Mhm. yeah. ah kay. Mhm. Ah, wax ñu tuuti si sa educational background. waaw comme as usual ni ko waxee woon la rek um, educational background bi jotutoon na um, dem fi sori. Mhm. si alkuraan bi lañ gënoon a focus. understand ma. waaw tax na daal bi jëlee ñu fi yóbbu ñu si àll bi. jàngi ko but finally tamit ñëwaat nañ. loolu yëpp daat bi mu ngi doon bañ dëgër boppa yeeg <laughs> yooyu noonu waaye still yaa ngi dëgër boppa rek yaa ngi insist jàpp ko foofu ba mu dëgër rek nga ne yow musique bi kon sa papa ak sa yaay sa parents yi daal naka lañ ko jëlee boo duggee si musique because nañ every effort pour gis ne rek nga avert from that that, that lane but then still family xam nga lu yàlla dogal rek foog mu am naka lañ ko jëlee buñ gisee ne yaa ngi dugga si musique bi comme before nag appreciate ko woon mm-hmm. yeah but bu mu demee tam bi ñu xam ne comme kii ne nekku si loo xamante ne ni caaxaan la wala foye la mhm. ful ak fayda la si def and then mu ñu woon loo xamante ne ni tamit comme lu si kanam rawut bët finally ñu appreciate ko nii mhm. nii bu maa ñëw nii sax xam nga man koo xam ne damaa dem interview mhm. ñoom ñëw bokk na si ñu ma gën a nekk di ee eh, xanaa da nga fàtte sa time bi ak mhm. yooyu noonu so apprécié naa loolu torop so dafa mel ni léegi ñoom daal ñu ngi baax ñu ngi baax yee ñu ñoom ñoom saa fu mu ñoom ma ko gën a soxla because bokk na ñu ma gën a nekk di push understand na before comme mun naa la wax ne comme am baax bi sax pour def project def day hard torop understand na because du ma leen ñeme naa face mën na ne jàppale leen ma li lii dama mention music understand na mm-hmm. mm-hmm. ba tey lu ma bëgg a def su ma leen ko waxee tamit ñoom daf dañ si dee taxaw you know ah, ah, sa talent si music ndik ah, nga ne jàng bi suruloo fa maanaam mm-hmm. english nga dem def arabic bi um, so ban time nga dem ba réaliser ne yow da am talent si music dafa nekk li nga xamante ne loolu nga war a demale ndax time boo nekkoon daara la dang dee nobatu nii laagu di xam nga di di ay saan wala nu fa demee waaw boobu mun naa la comme dama ànd ak moom because music moom lu ma yaaga bëgga la mhm. lu ma yaaga bëgga suma xol mhm. dama dem ak moom understand mhm. ñëw ak moom join booy di defantu understand finally bu ma génnee suma first song ku ma wax ne bii mooy suma first song da nga dewan even the big artist yi play naa leen play song boobu noonu ñu dégg ko ba sonn understand na mm-hmm. su ma la waxee ne bii mooy suma first song dañ ma day wax ne yow da nga teel a am talent bi mm-hmm. te boobu mooy ban song si gay mooy um, alala soro alala soro a dool kan doo ko pour kana fen ama mm-hmm. waaw boobu bokk na si song boo xamante ne nii moom a gën a pousse to extent bu ma nekk nii understand na although nekkut suma first song but moo nekk first song boo xamante ne nii comme ku ko dégg def ko dee moo tax nga ñëw si spotlight waaw yeah ah, jox ñu ko ok dol kando kufun kana fenno jalangol kono wol manjeno dene wana simi nono alimbla alala kento dol kono fasembu tenna konna la duwanko wole benna ngamun jenyala lulu doina kon wandina sonko nyale tala ala yaa dina doon kontaata la may toog di xalaat kos lii du jaama suñ ko munoon man tey ñu rey ma bot alan na man soñaale benna ahankeñ mun ko ahankeñ waaye song bi lan moo andi concept bi uh, is it sa own life experience la wala uh, da nga gis li nga xamante mu ngi happen in the society nga woy ko ndik wax nga si woy bi ne ñu uh, ngi laa liggéey mm-hmm. bëgguñ nga dem kanam sa progress bëgguñ koo gis dafa nekk li nga xamante ne da nga jaar sa jaar jaar la wala naka la waaw mun naa laa tamit bokk na si suma jaar-jaar mhm. waaw am na tam ñu ma gis yoo xamante ne nekkul si man personnel but gis naa si ñum nekk di dal mhm. understand ah, so loolu laa compare def ko song mhm. because tey mun naa laa wax ne danga wax doo def nit but ni du la def jamono buñ nekk ni foog na loolu am na understand nga and then ku nekk ak foo jógee ak fight boo fekk sa parents yi mooy loolu understand na so man juddu naa ma fekk a lot of things mu ngi daw mm-hmm. ba xam lan la understand na so mm-hmm. loolu yëpp compare naa ko ci song bi def ko song mm-hmm. yeah gis nañ si song bi tamit yaa ngi jaxase olof bi soose bi ak yooyu noonu ah, dama dee faral di latte artiste yi lii naka ngeen dee comme abaatee pour ngeen toog ba binda in wolof wala maninka nu mu fa de demé du dé difficult wala nakan lan moy sen secret. <laughs> man man lolu jaxal na ma torop. <laughs> man mom man mom mën na la né ko do outé artiste borwo because man song lum hat hat suma relax lum bari bari duma dé dee nak pen ak mhm. musuma binda song suma lay mhm. ak song bi arrangement bi lum mëna tay tay tay. waaw dama ko dé bos num mu ma neexee binuma ko understand na dama ko arrange with suma mayen. Mhm. understand na ma ko suma lot of songs studio work la ko dé def. Mm-hmm. dañoo toog nii nag booy ñu ne ma géej nga record nañ dugal dara. Mm-hmm. and then on that day dañoo dugal three songs yoo xamante ne dañ complete. Mm-hmm. nekkut songs yoo xamante ne dañoo dugal lii mu des lii non. dañoo dugal hook ñu dugal verse. ñu baag song bi ba mu jeex. macha allah understand so man mun naa laa dama uteeg artiste yi boor boobu noonu. and then sant naa ko yàlla torop. kon nag soo demee ba toog ba am inspiration. Uh, comme noo leen ko dee faral di waxee rek da nga mm. naa wax ne mun ngaa toog sa right now si studio bi nga gis dara nga am inspiration nga eh, sing mm. um, but den yow wax nga fi ne da nga dee dugg studio rek ñu play la bit bi rek nga demale si kawa mm. léegi uh, su dee instance bi nga xamante ne nekkuloo si biir studio yaa ngi outdoor wala yaa ngi sa kiir wala yaangi fenen dal fi nga xamantene nekulo ci bi studio bi mhm. nga am inspiration dara ñoo sa xel te amulo fa bit boy use pour tegu ci kawam naka nga di def da ngay jël sa phone nga record ko ba nga dem studio wala num fa dee demee tamit waaw dama ko mëna record comme flow bi nii mhm. mostly duma gel jël um, comme relax bi ni ma record ko but suma amé lolu mostly flow la ma dee dal mëna mhm. naa di am interview ak yow ma ya déglu ci souf ñu ngi play benam vibe Mm-hmm. melody bu man ne understand ma am si flow mm-hmm. sana. Mm-hmm. so flow bobu suma pare mën na ko record suma phone bi ma develop relax si suma suma say. yeah lan nga mëna jël fi ni rek def ko song right <laughs> now look around lan nga mëna <laughs> ana yow right now ka yow do mel ni mo gëna né am nga ñane lamda yo kay di fala oh dimbani hore wi kan anta oh Jerusali hole nosemi semi wanjuma. Hey. Eh. Put a ring by your finger. Eh. Hey. I go take you to Zimbabwe. Dance with me Zimbabwe. Eh. Hey. And I will be a singer. Hey. Mido yidi leko hita. Be. Halana miko falda. Hey. Satere wane mianda. Mami walitoma. Hey. enquête ah, bii de dañ koy ngénte bii dañ koy remise bii dañ ngénte foog ñu ngénte ko ah gars yi ñëw nañ fii di wéyal Fatima yi di wéyal Aïcha yi di wéyal ah kenn wéyalut ma gis nga kenn ñëw na wéyal na ma fi de soo la fi ñëwee soo la du baax <laughs> si lu ah, ah, dañ ko ngénte boobu noonu after la dañoo dugg studio ñu génne ko yaa ma gën a xam lan nga dee def apart from music because xam nañ ne music it's expensive hmm. soo waree dem studio nga war a record comme na ko fi waxee daf dee difficult sometimes pour nga faj sa yenn uh, music bills uh, te da nga dee feel maybe feel bad wala nga xala rus pour dem sa parents yi pour di mm-hmm. leen approach di wax ne fayal leen ma nii wala lii ak lii laa soxla na dafa am leneen li nga xamante ne yaa ngi koy def apart from uh, li nga xamante ne moo la dee dimbale pour sooy shoot sa videos yi maybe sa visuals yi ak soo waree am production si biir studio bi waaw comme right now ñu nga am si ñu di yëngu before sax man suma job moo nekk comme lu ma sol nii mun hmm. naa koo defaral suma boppa ñaw waaw mun naa koo defaral suma boppa and then comme am na tam ñoo xamante ne dama leen di liggéeyal understand na mm-hmm. ah, waaw foofu mun naa la maa ngi yëngu si boor boobu noonu mm-hmm. Yeah. ok so foofu nga di mun a dimbale sa boppa suma boppa waaw ok kan moo la gën a am um, kan moo gën a am impact si sa carrière bi depuis bi nga dooree musique ba tey kan moo la gën a jàppale positive impact mun naa la suma yaay ak suma manager ya. Mm-hmm. waaw ñoo la gën a jàppale ñoo ma gën a jàppale daal ok uh, Who is your favorite current artist right now right now right now right now si Gambia bi yo mm-hmm. uh-huh. <laughs> Gambia mm-hmm. know. They feel ST Uche vibe boobu di moom amoon de feel. ok so I'm amoon uh, opportunity bi tey i am a collab with any big artist Can I do doon <laughs> right now. Mm-hmm. ah maa ngi est-ce que ñu ma mention di yëpp amuñ collabo saa ba pare. Mm-hmm. Ah, am nañ song de. Mm-hmm. booba di mu am nañ song vibe am nañ song. Uche moom amaa moom song. but mu si plan bi. plan estate am ñu ngi job si loolu. so dafa mel ni yaa ngi liggéey projects back to back. of course yaa ngi yaa ngi. right now moom. mun naa la wax na mooy loolu de. Ah, naa relax bi su dooree moom. Mhm. ne ne xanaa ndaw bi mooy kan nag. parce mhm. que dañoo ñëw pour jël yëpp xam ah, moo tax ñu ngi laaw di job rek. Ah, ban mooy sa favorite performance bi nga xamante ne mus nga koo def si sa carrière bi yow nga dem si sa bopp ba nga wàcc stage nga ne man lii mooy suma best performance bi nga xam mus naa koo def since ma begin music. Um, oh est ce que nekkul QCity dina sooy attaque la woon. waaw naa suma boppam foofu trop. egg naa things mu ngi slow woon understand waaye mm-hmm. comme finally yëngal naa foofu noonu yëpp. Mm-hmm. understand ma. nga cepe parce que cepe cepe ñooy sa ñooy de ah? <laughs> ah. nga yëngal ka laa jaase. Ah, cepe yi booy yëpp laa waaye ah, yow. ñëpp a yëngatu understand. Mm-hmm. so boobu noonu. dama ko mos a faatee na. ok ah ban song mooy sa favorite song ba nga xamante anytime nga get on stage foog nga jox ko gaay waaw mooy suma alala soro bi rek. Mhm. mooy dool kan doogo bi pour kana fen ak suma freestyle yu ma dee mun mhm. xool ne soo laaj na vibe bi ni ma créé freestyle balaa maa dem foofu. Mhm. waaw ah. loolu tam daf ma dee jàppale. ok xam nañ ne um, taxaw si kanami crowd taxaw si kanami nit yu bëri easy wut. non and uh, sometimes mun taxaw nga feel nervous. Mm. wala nga am anxiety balaa ngay egg stage ndax mus na laa dal at any point in your career wala ndax ba tey daf la dee dal because dañ dee gis ne mostly artist mu egg stage. Mm. mu egg du yaaga rek xam nga mu dem off sax. waaw kii mu ngi war a wéy bi mu faate lyrics yi <laughs> fat fat sax wala mu war a eh, dal fii rek moom mu dalee fële na dañ ko dee gis si show yi a lot of times ndax hmm. loolu daf la dee mun a dal sometimes waaw man nag dama nekk nit ko xamante ne dama yaaga faraw na mm-hmm. dama yaaga faraw so façon yooyu pour mu ma dee daal bariwut mm-hmm. man so soo ma bëggee wik rek naa ñu ma fekka soo bàyyi boori mm-hmm. ay soobi su ma fa fekkee standard crowd rek daf ma dee ne dama dee sawar mhm. waaw man moom noonu laa mel mhm. waaw loolu moom mosul maa dal li noonu na da nga am song bi nga xamante ni daf la di make nga bi nga xamante ni soo ko dégloo rek daf la di am euh, fu mu la di yóbbu daal mhm. mooy ban song am naa ko waaye song boobu génnaagut sax si suma projet bi la nekk mooy suma collabo bi ak Jaliba ah, song daf ma dee laal lan hmm. moo tax mu la dee make nga feel emotional lu tax mu la dee yóbbu feneen lu ma fa woy la mm-hmm. ma fa la comme mm-hmm. nga yaaxa doomi concept bi moo nekk comme nga yaaxa doomi jàmbur te comme defut la waxut la mm-hmm. understand na ni mu nekk dof booy gis mbeela bi understand na song bi comme noonu la ñëwee daal and then it's about comme loolu la daal ah, nga yaakaar doomu jàmbur understand ma ba finally mu dof te su ma fii dee su ma dégluwee nu ma ko signé mm. understand ma dafa am lu bëri lu ma dee fii loolu dafa nekk li nga xamante ne bëri na si dëkk bi waaw da nga gis ne koona boo dem rek di nga fa fekk mi bi xale bu ndaw sax mu ngi um, lose mind naam xam nga ñu ngi toog si sites yi nii ah, waaye tamit kon ka dem nga ba ah, ñëw ak concept boobu noonu ba woy li nga xamante ne dafa am solo bu baax a baax because um, mu ngi bari si dëkk bi waaye mhm. kenn du ko dee wax kenn du si mhm. dee def dara lan nga foog ne loolu la nit askan bi war a def ak nguur bi si boppam pour make sure ne ah, ñi nga xamante ne ñu ngee ndox si yoon mi nii ñeneen yi dañ dee violent mhm. da nga gis ñeneen yi ñu dóor la di la mbéj si yoon bi da nga dee gis loolu noonu si mm-hmm. dof dof yi nga xamante ne dañoo agressif mm-hmm. si yoon bi nga xam ne soo leen gisee sax da nga dee daw man sax daf ma dee mën a dal mm-hmm. gis dof rek biir marché ah Aïcha you can attest to that gis dof bi si marché bi rek mu ma réel rek ma daw wala ma gis ko rek daw because sometimes borom daf dee agressif ba pare doo dee expect ba pare dof su la defee dara at the end of the day lu ñuy wax ah, dof la yow yaa perte lu mu la def rek ah, yow la soo lan nga am kon yow dem nga ba ñu wax concept boobu noonu yaa ngee bàyyi xel lu nekk di xew si biir dëkk bi ba nga ñëw come up insanity yow lan nga am pour ooj nit yi ak nguur gi tamit si aspect boobu noonu. waaw comme man lu ma mën a wax gars yi rek mooy mhm. ñooñu ñooñu jaruñoo faate. Mhm. understand mhm. jaruñoo faate dañ war a gëstu gars yi bu baax. spécial fu gars yi fu ñu leen dee teg noonu. understand na. lu si bëri mais bi am na ñoo instant soo fa duggee sax ñëpp a day ñëw si yow. understand na daf yëpp a ñëw si yow. ñii di try pour laal la understand na ñii ñu ngi xiif di laaj ñaan understand na mhm. soo loolu nit yi war nañoo gëstu loolu bu mhm. baax mhm. koo xamante ne ni sa jot na sa gannaaw war nga di taal sa moto dem foofu noonu am loo yóbbul gars eh, yi understand na yëre ida lekka understand na important na trop ñooñu waruñoo di faate gars yi because ñoo tamit si dëkk bi lañ bokka si askan yi lañ bokka mhm. suñ pafegoon duñ nekk foofu mhm. because kenn ñaanut yàlla sa doom nekk fa wala yow nga dem nga nekk fa mhm. understand soo fii lañ nekkoon finally loolu dal leen nobody knows because tey moom si tey lañ nekk waaye luy ñëw ëllëg kenn xamul mun nañ toog fii di ko waa fekk yàlla ngi def si kanam loo xam ne mooy loolu. Mhm. yàlla na suñu yàlla nañu si loolu. nga man moom suma olof bi setul. setul <laughs> ah kay. pël yi duñ demul. pël yi ah waaye man nit dañ may faral di la te ñu ne ma ne yow pël nga ni yow pël bi nga xam ne da ngay laaka olof mel ni yow olof nga ah, wala da ngay laaka. soosu mel ni soosu suñ déggee nag dégg nañ de. Mhm. waaw loolu tam mu ah, yaa baax. ah baax na daal mu ngi promote yaa ngi promote de waaye xam naa ñeneen yaa ngi ma ne ya? ah poli dam leen toppale yéen kañ ngeen dégg olof wala kañ ngeen dégg soose di ñëw di garaaw garaawlu ah waaye noonu la ah, are you signed under any level right now Level no sign ma benn level waaye maa ngi job ak squad viper ya right now mm-hmm. yeah lan moo waral loolu yow yaa parewut wala dañ la approach agut non man maa parewut saa si affaire label comme mm-hmm. nu ma la ko waxee woon rek comme ñun mm-hmm luñ gëna gis mo nekk pour suñ boppa ba nekk fa because bu gëna njëriñoo si lu ñoo def mhm. understand ñun loolu moo ñu gën a dimbale because mun naa laa ne fuñ jógee mhm. moo gën a sori tey fuñ nekk understand ku ñu jàppale tamit lu ndaw rek ngay puus mhm. understand ñu àgg fu ñoo dem waaw so loolu moo tax man sawaruma nag si mbiri level dëgg so waroon na dem ba sawar si biir level lan moo la war a tax nga dugga si biir level yan benefits nga nekk di séentu from a level ah unless mm-hmm. comme man luma buga mm achieve mm-hmm. level bi wa luar dina sawar ma science level bi wa luar rek ay tax ma def lol mm-hmm. mm-hmm. kañ fan nga gis sa in the next five years to come yan achievements nga gis sa bopa ngay achieve in the next 5 years mm-hmm. next five years so compté three so kon sokon te two minus ega Ah hanke fan nga gisa bo sikawa fan la la nit yi wara on top on top mm -hmm. because suma job bi dama ajo boobu rek ba nga aj waaw ah, ah, damaski moom so ko waxee rek mm-hmm. after place lañ koo teg because right now vibe mo ma job mm-hmm. nekkul vibe bob lañ ma xamee mm-hmm. understand na నేను గుడ్ వైబ్ ఓపెన్ మహమే థింగ్స్ దఫా చేంజ్ టోటల్ బికాస్ సోగి సేమ్ అంటే ఫ్లోలు గాంబియన్ మ్యూజిక్ బి దఫా టైర్ ni so మంతేనని so సోబుగే న్యూ nga mek ko fo nga unique unique mm understand nga so mhm. man right now unique vibe plan ka di def mm yeah okay. mo rada ma focus mo si suma lakat mm nga before man don mix lot of lakas mm understand nga mhm. wa fi bena song bi so wa si all of us but dama liggéey project bo xamanteni yep suma lakas lakal understand mhm. ba pare vibe bi dafa unique because laaka boobu tam ñu koo laaka bari na mhm. waaye comme vibe yi dafa different mhm. yeah nga gisee sa bopp as an artist comme artist bu different ak artist yi la because man mun naa la wax comme right now su ma ko waxee nit yi dañoo duñ mën a understand waaye comme su ma fi ñëwaatee ma toog fekk drop naa suñ project gi ba toog dinañ understand bu baax lu wax so moo tax amal leen foofu rek. soo ah, mm-hmm. so Demaski daal foo ko gis rek mu ngi suwaak xam nga. dóor bling saam yi tey moom dafa mel ni da nga fàtte bling si de wala nu fa demee tey da nga fàtte de dama eew rek xam nga yaa xamti ah foo gis demaski rek bling si yaa fa xam nga gisuloo loxo yaa ngi fees yaa ma gën a xam nga ah yaa ngi folee ak black bi ak <laughs> waaye nag man leena daf ma dee faral di jaaxal saa su nekk hmm. damay am fii su ma ges yi su ma ges yi foog ñu nduroo kola ah hmm. su ma defee black ñu def su ma defee white ñu def nu mu fa dee demee yow yaa saaco su ma kola bi tey de hmm, wala nu mu fa demee because foo dee xalaatee foofu lañ tee la kap ci xam nga ah, bugga lu naay ah, si <laughs> ah ngeen ku ma rek xam na ne. man si sanse lay doon waaw lekkuma naanuma nag. ah am naa ne gars yi ñu ngi toog foofu ñu naan xoolal mu ngi problème ba pare ah waaye noonu la. <laughs> artiste yi nu ñoo ñëw toogee suma plateforme di naan man may king bi. Mm. man may queen of this man kenn munut ma dégg loolu waa nga ne la da nga unique man tamit ah foog ma. foog ma limin <laughs> suma boppam de yéen a ma gën a xam. kon nga show bi mu ne gist ah, awa foog ñu gist. Mm-hmm. foog ñu. xam nga. Mhm. ñu ko si tuuti. yaa ma gën xam ñu dugg si side produce ay promoter yi. Mhm. Um, gam showbiz organiser yi. Mhm. Uh, ñu njëkkee si promoter yi. xam naa ne promoter yi dañoo stade wane kii nag léegi nag. mu ngi dugg suñu deb waaye fook ma wax li nga xamante ne nit yi loolu la ñuy wax si biti fii laa ko andi ma leeral ko li nga xamante ne artistes yi ñu ngi ko am seen xol yi ak seen xel yi ñu ngi ko bëgg wax amuñ fuñ ko waxee fii laa la andi ñu wax ko fii si gis awa bi Eco TV rek a leen ko andil nag ak seen xarit seen doomu ndey Fatoumata Jallow Demaski Mm. promoter yi dañuy faral di wane promoter yi some of them dañ bias artiste bu leen neex la ñuy promote show bu leen neex la ñuy promote ah da ngay gis ne dañoo use artiste ñu promote seen show ba pare at the end of the day artiste yi feel ne dañ leen use nga def leen ci sa flyer sa show nga ñëw nga promote show bi ba pare artiste bu ñëw du egg stage wala nga ne ko yow ñoo àndal yëpp doole mun a dugga wala mu egg nga ne ko benn track ngay eh, perform nga wàcca wala mu egg sax ngeen koo jaay dof wala big artistes yi ñëw ñu ne léegi time yi euh, artistes yi mhm. uprising stars yi jeex na léegi léegi big artistes yi rek ay egg loolu dafa nekk li nga xamante ne mu ngi rampan mu ngi xappun si dëkk bi artiste bu koy euh, déggut tamit gis nga ko soo ko gisul tamit daal na la euh, soo xam ne am nga expérience si loolu tamit nga wax ñu tuuti. waaw loolu moom kay ak commune artiste bu nekk yaa ngi fees loolu. si mhm. boppam mun naa la ñoo respect good artist. Mhm. ñoo respect si boppam. because sooy xoolee yeneen dëkka si dañ gëm ñooñu dañ leen respect dañ leen value waaye comme loolu dafa laa Gambia si boori yëpp understand na fii nga gis comme mun na la président boo xamante ne nii mu ngi taxaw di fay paas te dëkka ba nga koo gis mu ngi fay paas yaa ngi toog sa moto nga xam ne kii ku dëkk bi bugga la understand na yow ñooñu noonu war nañ laa provide loo xamante ne nii fooy dem sa dem du nekk sa problème understand na waaye loolu yëpp dafa laag sakasuma soo ñëwee si wàllum promoters yi ñooñu business leen dee demali léegi understand mm-hmm. fii mm-hmm. fépp dégguñ ne mm-hmm. damaski feesal na Manjai Park walla toj na Q City wala feesal na Pencami Hall albumam bi doo ko gis ci big plateforme yi doo ko gis si flyer fa xamante ne foofu la big artist yi nekk moo tax man lu ma leen a wax rek dee buñ dégg ne boy bi success na kuy ñëw tamit xaalis mooy tax ñu jóob waaw ah, jóobaluma kenn firi waaw mhm. because suma ma right now expenditure bu ma nekka di def man rek maa ko xam mhm. te comme ñu ngi toog fii di wax seen bias bi nu mu fa dee demee te ñun xam ne ñoom xam ne luñ nekk di wax fii yëpp dëgg la mhm. loo wax fii si starting yëpp dëgg la da ngaa agsi sa soo ñu ne la ne doo mun a dugal ñaari nit yi dëkk boo xamante ne nii foo dox yow kenn ñu jam la yow mënuloo dem ak sa booy foog nga sol sa moto ba mu fees nga dem ak booy because yow tamit loolu mooy sa safety yow da nga dem pour solo rek nekkul da nga dem pour ñu fee la dara dañ mm-hmm. laa ñëw nga bàyyi nga ñu bàyyi la nga dugga nga dem nga perform mm-hmm. performal leen mm-hmm. nga wàcca nga wàcca sa boy nga dox because of man moom ku mel ni man dama dee perform ba pare dugaat si crowd bi di seetaan performance man meluma noonu man suma ma performé rek dox naa su ma dem party sax ma ay Sénégal bi di ci lak boy waaye soo boobu pare naa si boobu business la understand su ma liggéey bi loolu la su mhm. ma paree si suma liggéey bi maa ngi nele mhm. understand so loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax mhm. waaye soo gisee respect guñ gars comme nu ma la waxee rek because gis nañ ne yow mais bi sa venue bi nu mu feesee karaat boobu diñ leen andi understand so soo demee ba tollu si boobu lañ la dee bëgg a respect te man respect boobu ak xaalis ñuy mooy loolu. Mhm. ñu dugg si produit say tamit euh, dañuy faral di wax ne produit say da dem nga fay yi sax seen xaalis euh, pour ñu produire la sa beats and at the end of the day dañ laa nekk di saani saani di la wax ah demaski demal ba ëllëg xaaral ba gannaaw ëllëg wala dama génn nekkuma fa wala at the end of the day nga am sa projet bi boo den yow loo bëggoon foofu noonu. duñ ko fa di def mm-hmm. lu leen neex la ñuy def suñ paree duñ la si tegal wax bu ne. waaw loolu tamit na waar trop si produit say. Mhm. waaw boobu. mën naa laa suma expérience bi bariwul foofu because man mhm. maa fi boo yu bari mhm. waaw right now suma project bi yëpp Kolda ni nekk di defar bit mhm. waaw te ñooñu moom dee bu ñu wax mbir bit bi dee bu moo pare si nawet bi man balaa maa eewu sax seen nañ ma ko ma seen ko suma producer mu déglu mu ne ma like naa li wala nañ ajo foofu lii ñu seenaat ko immédiat di def ko dee def ñooñu fonk nañ seen liggéey trop because of ñoom foo leen dee amee misunderstanding moo nekk nga mm-hmm. seen leen projet te gisuñ xaalis bi waaw mm-hmm. ah, foofu la sa liggéey di taxaw waaye mm-hmm. ah, di moo xaalis bi dem na ñoom pare nañ on dee boo leen wax balaa dee bi saa dañ la ko seen waaye Gambia comme loolu mu ngi disturb booy man dama dee am complain ñu bari and then liggéey naa fi ak booy ay seen ay album ñu ngi ko waroon understand gis nañ difficulties yuñ face am na certain producer jaruma wa seen tur sa waaye lu ñu nekk di def mu ngi yaaxal gaay nasaan mm-hmm. ñu ngi yaaxal seen boppa te nit am na foo dee toolu mm-hmm. yow yaa war a brand sa boppa yow yaa war a teg sa boppa fu la nit yi teg mm-hmm. so loolu dafa important trop moo gën ma fay suma xaalis nga maa ne demal tey nga ñëw ëllëg nga ñëw nekkul loolu laa la fayee am suma plan so yow sandi bi yaa ngi tax suma bi everything mu yaaw so loolu dañ ko war di sóoraale bu baax a ah, lan nga foog ne loolu la organizing team si war a def when it comes to showbiz nga am concert wala bi nga am album launching nga invite maybe twenty uh, to thirty artists or even more te xam nga ne Gambian bi dangay wax show bi nine la mooy start. Hmm. kañ ngaa gis ni ti twelve one. twelve one. Um, nga toogati nga ne yow invite nga maybe thirty to maybe twenty to thirty or even more artists nga xam ne upcoming artists yi xam hmm. nañ ne right now Gambia foo toon rek. artist foo toon artist nga war a invite ñooñu yëpp ñu war a ñëw ñu war a perform main artist bi war a ñëw tamit moom tam mu war a perform si maybe within three four hours maybe four hours or five nga war a gis ne show bi tamit late to start. Mm-hmm. yow naka nga uh, foogee ne nit yi noonu la ñu war a def pour put in place tactics yi nga xam te loolu la ñu war a def pour gis ne façon yooyu noonu dañ koy avoid uh, show yi mun a organise mun a teel a start ñëpp war a mun a perform waaye si nga di gis xëccoo mu ñëw. maybe upcoming artist bi mu ngi fa depuis after timis mu ngi toog. Hmm. show bi kon ka startut ba boori wan. Hmm. nga gis ne big artist yi ñëw na nga ne benn upcoming artist du eggati big artist yi ñëw na ñooñu mënuñ ta xaar dugg na fi génn na fële. Hmm. naka nga gisee loolu. comme loolu loolu si yow mi invite artist yi. Mhm. yow yaa nekk di def mistake. Mhm. waaw mën naa laa ne sax du mistake léegi nit yi dañ ko doon def maa tey. maa tey. Mhm. because of ma invité. invite keneen invite keneen. Mhm. su ma invité gars yi ma njaay nga soxla. understand. Mhm. Mhm. mun naa la wax yeneen of commune yi duñ la andil nit. waaye leena la ñu war a understand am na yeneen artistes yoo dee invite bàyyi foo seet nit yi dañoo dem. understand moo tax man balaa ma dee dem show dama dee bëgg a suma manager dama ko dee moom because of ñun nit yu ñu dee ñun tam nit yu ñu dee toppa man am su ma war a tee lañ ma gën a laajte sax da ngaa ñëw nekk si show bi maa ngi bëgg si show ma maybe ma nekk fa because of bëgg maa yaaxal yoram looy am mhm. understand so mhm. nañ gaa yi dem support rek mhm. waaye tamit soo xamee ne sa show bi nii nga ko plané yow sa crowd def de bu nekk xam na crowd am yow sa crowd dañ a génn te two hours nga may upcoming artiste yi di fayatal loolu nga xool ñaata artiste ñoo na a perform si hours bii ni nga jël ñooñu fekk ñu ko ñu ko loo leen foofu noonu rek at the next minute ñeeta perform fifty yi perform xam dañ la dañ la nekk against rek fekk nekkut sa fault mm-hmm. understand mm-hmm. so loolu dañ ko war di bàyyi xel because tamit neexut doo mun a struggle nga jënd sa yére jënd daala fee pass mm-hmm. understand na ñeneen ñi toppala amuñ pass nga passale leen so loolu noonu yëpp dafa bëri soo xamee ne perform kay jaru nga koo invite so ankay ah, nga ne naka nga jënd yére jënd daala pour swag nga pare <laughs> invite demaski damay faral di dégg tamit ne artiste yi ñu ne ah man lu ma sol si show bi du ma ko solaat ngena aja ban baan wala num fa wala itam si catégorie bobu nga boka no lo sol do ko solati déedéet no man melu meluma non because sang mm-hmm. man mom awma man awma dara mm-hmm. so luma sol suma fi fii ne tam mun naa koo solaat tamit mm-hmm. mun sol big arrest sa ñu ngi sol solat, so sakantuma upcoming adis jeena <laughs> ah, ok waaw wa da nga gis ne amna na da dem ko day bañ de dañ lay wane ah man du moko def ah léegi man celebrity laa loolu noonu du ma ko mën a def man problème ni laa loolu du ma ko mën a def te dafa nekk li nga xamante ne daf di sonal ñu bëri ndik soo ne da ngay live live boo xamante ne aguloo aguloo fa problème la ah nga gis artiste buy dem di runga wala di dem di lebal wala di aba problème la moytu leen waxuma da ngeen ko dee def de waaye daal ah <laughs> dañ ko dee def sax <laughs> yaa ko wax de su ñëwee bu dee bon bokkuma si de xam nga Paul du dee ñeme waaye yow Paul bu dëgër fit nga moo tax la si lifin bi pour nga dem jàng alxuraan still nga ñëw rek bounce back nga ne foog nga def ko rek booy kay dañoo flex flex lu rek waaye ah fii kay booy mooy loolu because suñ industrie baa amul xaalis pour support. Mhm. fii gis nga ko yóbbu boppam. Mhm. ku dem tu level boo xamante ne nii nit yëpp ñu ngi ko coow moo fa yóbbu boppam. Mhm. and then xaalis boobu moo ko struggle al boppam. because tey soo demee ma ne la ne abal ma fifty taw. damaa def project am naa fit de. understand te tam am naa yaakaar ne naa la ko deeloo. so man after man job buma def ak boy dafa different because of man dama rey suma boba si luma ma bëgg ni because amna naka la amé xaliss mm -hmm. so moo job yi tam ñu dé different mhm. job yi dañ dé different moo gambé dañ war di baye xel mhm. artiste yi nuñ nekk di ñëwé mhm. jappalé lé non respecté lé non tamit understand da nga sa boba di job every day di kurtu carte pour jox quality thing understand sana tax man suma project duma ko dé yakamti because dama xam ne su ma yaaxamte man du ma mun a andi lu ma bëgg a andi. et mhm. pare que man dama dee calculer booy lu ñu nekk di def. Mhm. understand mhm. am na nit ki foo dee toolu. ak sa job boo soxla. am na nag foo dee bëgg foog nga yokk a job. understand na foog nga am quality product foog nga am quality video. foog nga am quality bit boo xamante ne yaa ko moom. dañ la ko tegal understand na so loolu yëpp dafa important te loolu yëpp nekkul xaalis bu ndaw moo ko def. understand mm-hmm. vidéo bu gën a cheap fii ñu ne forty five thousand thirty thousand mm-hmm. Mm-hmm. so loolu upcoming artist fan nga xoo amee ba nga ne sa projet bi yëpp noonu nga xoo sutee xam nga du mun a woo so moo nekk ting bi so moo tax suñ gisee kuy def loolu dañ ko waral a respect ñu xam ne kii am na lu mu soxla ñu jàppale ko si waaw ah, loolu mooy game bi no ah, ok ah, ndax si sa gis-gis foog nga ne Music Union bi ak NCAC bi National Centre for Arts and Culture ñu ngi def seen liggéey ndax gis nañ fii nii léegi artistes yi seen show yi dafay clash foreign artist ñëw mu clash ak eh, suñ home base artistes yi seen the same date na foog nga ne ñoom ñu ngi def seen liggéey bi. moo tax bu ma bu ma ko njëkkee ma ne la ne Gambia respect guñu artiste. Mm-hmm. artiste bu ñëw pour classe fii nii. Mm-hmm. soo demoon dëkkam defaloo nga classe. Mm-hmm. liir saa doo ko gis. Mhm. ñëpp dañoo demali seen bos waaye soo gisee tey su déedéet classe. Mhm. ngay dem bu international artiste bi. Mhm. yow saa yaa yaa bëggut sa dëkk. understand na artiste bu gën a tuuti saa su xewle woon dat day dañ ko war a dem dooleel. understand na so ñooñu saa mun naa laa du ma blame artiste bi waaye promoteurs yu dee def loolu. ñooñu ñoo nekkul di def lu saam. fii léegi sax. artistes yi ak artistes yi sax ñu ngi classe suñ biir dëkk ay show mhm. te loolu noonu yëpp megut sense mhm. parce que soo gisee nga teg sa show dafa am loo bëgga mhm. understand na man tam su ma buggee dara jarul ma laa disturb loolu iñaan la understand na soo dañ war a bàyyi xel si loolu noonu lu bëri understand na suñ soo jëlee sa date gis naa sa flyer jarul may jël date boobu waaw xoolal beneen date moo gën a make sense waaw waaye dangay faral di dégg yeneen artistes ñu naan ah man suma audience ak moom audience am yi duñ na so bàyyi ma def rek wala ku nekk ak wër sa kaam la waaye gis nañ ne music industry bi dafa ndaw um, ñu ngee struggle still so soo ne yow daal sa own audience nga am wala nga ne ku nekk mu jëmalee lu mu am the same audience yu dee ñëw si yow ñoo dee ñëw si man so at the end of the day yow loo bëgg doo ko am hmm. man lu ma bugga du ma ko am musique bi du dem kanam moo tax uh, amoon naa fi guest mu ne artistes yi seen xol yi nekkuñ benn non ñoom yi ne nekkuñ benn yow naka nga gisee music industry bi waaw comme xam nga moo wax loolu de waaye fu mu gisee baax na trop because loolu moo nekk di daw mm-hmm. xool lii nekkul benn mm-hmm. ba pare comme mun naa laa wax comme buggante bi dafa des mm-hmm. pretend baa dee bari rek buggante bi dafa des saana fii nga dee copa ay am nañ fi léegi ay superstar waaye pour nga gis ñu naaj benn ñaari xale pour teg la level du dee am loolu noonu yëpp soxor la understand because of kenn du la wax ne xamul lu upcoming artist day daj mhm. kenn jógul rek biig mhm. da nga nekk upcoming artist ba wan dee nga biig mhm. te lu laa biig loo yow saa doo ko xam time bi su jotee rek yëpp ay gaaw waaye soo demee ba biig tamit war ngaa gestu si gannaaw moo tax sénégalais artist boo mit nga wax ko sa soxla nga wax loo bëgg si moom def la ko day dimbale parce que ñooñu amuñ amuñ xool boobu noonu understand na mhm. pare comme dañ dee xalaat comme ñoom lu ñu daan daj mhm. yàggul maa ngi toog ak ah, kabi mhm. booy joolaa boobu kaasa bu mu ñëwee fii yëpp ñoo nekkatu géere waaye bu mu ngi mu ngi mu ngi door di biig understand na ba pare fu mu nekk nii ñëpp ko like mu ngi teg ay sow tey su tegoon kaasa waale teg kaasa waale du gis daal waaye ba léegi su la waxee ko moom lu mu dee feel si upcoming artist di ko dee feel si kenn ko mun laa ne comme brainam bi dafa baax mhm. nasaan ba pare xaalis yóbbaale wut ko mhm. so loolu dafa important trop soo demee bi biig sax bul dee fàtte mhm. nit su ñëwee si yow mu ne la lii laa nga dee caba léegi booy ñu ngi charge upcoming artist pour collab fee ma nangam <laughs> loolu laa gis duma ko mus def loolu noonu yëpp soxor la understand loolu noonu yëpp sawnul because of yow suñ la doon charge pour collab pour nga aaga foo aaga doo ko doon aaga because of yow time boobu moo gën a métti xam léegi saa mun naa la am xaalis tane na mhm. mhm. understand mun ngaa def sa dugalante nga am big money mhm. understand waaye before pour nga am loolu problème la te yow defuñ la noonu bu ko def keneen loolu ah, ok ah, eh, gis si benn interview benn artist mu ngi mention ne soo gisee moom personally mu dee um, charge artist yi music bi business la soo bëggee music bi dem kanam foog ngeen génnee aside yi fii suma broda la suma sista la ah kii suma xarit la wala suma childhood friend la pour gis na musique bi dafa war a dem kanam soo leen nekkee di favor wante eh, favor ngeen a favor wante di favor wante ah free bàyyi ñu def ko free thing free thing musique bi tamit du grow du dem kanam foog xaalis bu dugga fa sometimes ngeen teg aside maybe friendship yeeg mbooka naay seeg yooyu noonu naka nga loolu tamit. good sense. Mm-hmm. music business bi dafa am business bi fu mu nekk. Mhm. understand na foofu business bi nekku fa. Mhm. moom suñ ko daan business loo before. Mhm. du doon àgga fu mu àgga de su doon àgga foofu sax du nekk time bi. parce que baax moom bu moo charge nii before moom amut ko. soo ma nee jox ma twenty five taaw tey la ne nga wax ma twenty five taaw. waaye comme dimba yow boo doon toolu man fu ma toolu noonu twenty thousand wala benn five thousand pour nga am ko problème la because of time boobu noonu mhm. moom soo xelaatee time boobu noonu sax amut vidéo boo xamante ne nii mun nga wax ne kii dugal na foofu noonu two thousand five hundred pour mais bi bagage yu ñu war a jëndal mhm. so foofu nga dee calculer musique although ne business la mhm. waaye business si koo xamante ne nii mun ngaa business foofu aw ko mën arrêté doo mun a nekk business tam mhm. su nekkoon ne comme ñëw na pour business mhm. di nga ko doon gis si projet gam yi ni kon du la doon tëbu moom mhm. liggéeyam rek dina ko yóbbu fu mu a àgg ay doole baa fa nekkul so foo nga war a calculer soo amoon chance bi tey pour change one thing about the music industry lan la mooy nekk nan ngay change naa mun a change lu bari de so one thing boobu noonu sax dafa ndaw. <laughs> waaye one thing bi nga xamante ne loolu moo la disturb time bi ba nga xamante ne saa yoo toogee rek da ngay feel ne this needs to change yow one thing boobu noonu lan la. mun naa laa jàppale. Mm-hmm. ma doon change seen xol yi laa doon change. Mm-hmm. ñu xal leen xol jàppale. Mm-hmm. understand ñu jàppale upcoming artist yi. understand because dafa métti trop grind bi def dee over métti. understand na mm-hmm. ak tamit na koo ko métti loo because su méttee mm-hmm. xamal loo mun a def mm-hmm. bul yaa xamte mun naa laa fi ñu bari tamit dañ dee roos torop te roos bi du la dimbale big artist lu ko cëleñ du lu du du lu naxari tegal sa time rek nga liggéey pare bul dee def sa xol bi ne comme kii laa nekk di cëleñ dafa war a daanuma éeg non liggéeyal place boo xamante ne nii tey dinañ gis sa job teg la fa mhm. so yow tam nekk nga fa léegi teg si bagaas yi dañ bari mhm. xoolal bagaas bu la nee nga teg si sa mhm. flag fay da nga egg da nga egg si kaw understand because of tey yow genre boo nekka mun nga koo jox style boo xamante ne nii yow rek yaa ko nekk di def tey nga génne ko nit yi apprécier ko bu baax understand so yow loolu noonu rek mun na laa teg fu kenn nekkut yow mhm. dafa mel ni yow sa big artist si boppa nga mhm. because of tey yaa ngi andi loo xamante ne kenn andiwut ko yaa ngi amee loo xamante ne kenn amut ko mhm. understand na so yàlla su la melee mayee yow tamit sa nit yoo xamante ne ñu ngi sa gannaaw di la pousse rek yow yaa ngi fa already so moo tax ma ne léegi nii nii pour roos because léegi jàppalante fii bariwut ok ah, yan weakness nga am yi nga xamante ne you're trying to improve on them right now because xam nañ ne kenn matut nit mm-hmm. matut foog nga am certain things yi nga xamante ne ñoo la dee mun a teree def yeneen yi ñoo la dee mun a teree aaga fi nga xamante ne foofu nga bëgg a aaga maanaam sa weakness yi ndax am nga any weakness bi nga xamante ne you're trying to work on it right now waaw lu ma nekka di weakness yi moo nekka like mm-hmm. finance mm-hmm. understand ñu ngi lot of things yoo xamante suñu ñëwee ba foofu rek la things day xala slow so mm-hmm. foog ñu teg suñ time mm-hmm. job ko lijjante ko mm-hmm. xool nu ñoo rombee foofu soo xaalis bi rek moo ñu dee kale du dara xaalis bi rek moo ñu dee kale waaw moo tax suñu àggee foofu noonu tamit nañ dee teg suñ time bu baax right now song amee bari na ñuy war a sut vidéo bari na so foofu rek weakness la understand so moo tax ñu ngi teg suñ time mm-hmm. lijjanti xaalis bi mm-hmm. ndànka ndànka understand na although right now ni sant yàlla mm-hmm. ñu ngi investi ay business yoo xamante ne nii dina ñu julaan xaalis ba pare luñ bëgg a def duñ càng si mbiri xaalis nga dafa important because tey mën naa jooy mbiri xaalis ma am fii nii xaalis big money ma jékki-jékki rek lifin na xanam tuddaat yi ma use ko si projet Mhm. ma dem ba jeexal project boobu war a def mhm. benen project ma mhm. càng si mbiri xaalis so loolu du ma dimbale understand so moo tax ñu ngi investi ay business yoo xamante ne duñ mun a cangaate mbiri xaalis waaw saa yu ñu jógee mbiri xaalis rek suñ gëstoo tamit suñ account mu ngi am lu tane ñu eh. ah naka nga fiile ne internet bi am impact si music business bi internet bi léegi mooy yëpp understand internet bi mooy yëpp because tey comédien yi sax ñu siiw mm-hmm. te si internet bi lañ siiwee ñu ñu defuñ music mm-hmm. da gis ku mun music mm-hmm. waaye munut internet bi soo loolu tam mu ngi delay artistes yu bëri understand na so war nañoo waxoon si loolu noonu bu baax soo gisee tamit artiste boo xamante ne lii mooy fool tam si internet side bi war ngaa ñëw nga ne ko ne taal nga adjust si lii sa internet bi understand na daf laa dimbale ngay gis ne yeneen artistes yi um, social media handles yi du dee active wala nga gis ne duñ fa dee post frequently pour update seen audience yi mhm. ak seen fans yi tamit ñi nga xam te ne ñu ngi leen a toppa soo foog naa loolu am na solo bu baax a baax pour artiste bu nekk nga su dee mënuloo koo def wala mënuloo koo euh, amuloo time mhm. nga ut ki nga xamante ne dafay manage sa social media handles yi mhm. waaye tamit dañ dee gis ne communication dafa nekk li nga xam xamante ne is very important in a person's life naka nga fiilee ne communication mu ngi helpful si music business bi tamit abubuwa am important na trop because lu sufa fa e nekkul mhm. rek seen job bi foog mën na dina muna dem si kanam waaw mhm. communication bi mooy yëpp waaw mhm. di mo ngena a communiquer rek di mo yëpp mu ngi yomba because man kee na mënuma pousse yëpp yow kee na mënuloo so di mo nga am comme chain work boo xamante ne nii comme reading baam fa communication baam fa yëpp daf dee light daf dee smooth daf dee gaaw waaw important na trop ngañ <laughs> hmm. ah Demaski kontaan nañ si sa ñëw bi fii tey ñu bëgg a tuuti nga wax ñu si projet si nga xamante ne yooyu nga nekk di work on parce que time bi xoj nañu time bi léegi. waaw ok right now ngi am projet yoo xamante ne ni bu ñu nekk di job mm-hmm. teg nañ si kawam EP waat. Mm-hmm. understand na. Mm-hmm. squad vibe tamit uh, Kush Gang bi. ñu ngi am EP buñ ñu di job kambi booy Jola Mala wax nii tamit. ñu ngi am projet bu ñu nekk di job ak moom. understand so umna la la na project yaa ngi bari understand mm-hmm. na mm-hmm. lu si kanam rawat bor dinañ mm-hmm. fi ñëwaat wax len si ban project lanyo ñoo proceed inshallah waa nit yi dem ak boobu ya ahankañ waaye ñu dem foog nga baaxee ñu freestyle rek ok bala ñu close <laughs> ok ba ma faj la song bu ma la doon wax noonu yewandi dinti ñaa andu nga de la fuyte maalonko ñin duniya woɓe bannale ey eh, kana ñina alatalla o wañaɓelale bari moye minke duniya isatara lakira e abama eh, kumbota afama kumbota woyo adingo ñamata alamol be jomol taale duna duna duna duna duna duna, duna. tol damma leka ñootiña leka ñootiña kuma yata bake bake bake in <laughs> kay ko wow fenati mi yalla ko kuma yata le ko tan dafa dafa nekk li um, nga xamantene ngi happen yaaxante bi problèmes yi fële doo dee xam baax na tamit artiste nga nekk ki nga xamante ne doo MC entertainment mm-hmm. foog nga éduquer tamit sa fans yi ak ñi nga xamante ne dañ la dee toppa di la déglu di la seetaan um, Demaski ñu ngi kontaan trop si sa teewaay fii de thank you so much for coming our uh, viewers this is all we had for you on this episode of the Gist Hour you're watching Eco TV International thanks for watching